man am ci lo sukkandiku fani dañu deg ñu nan Ousmane Sonko amul experience bu mu yore rew mi Ousmane Sonko dal wërte dem palais ndax amul experience, lol nak xawno jaaxal trop ma di len xamal ne le Sénégalais ci bopam xamul experience xamuko ndax bo xolé ñi fi massa jaar ba jall amu ci kenn ko xamne def nga fi lu baax def nga fi lu sotti déedéet amu fi benn Ousmane a fi indi ay solution teg ko muy solution yoo xam ne xale yi gëstu nañ ko seet ko te kat xale yi dañoo gëstu ndax les nouvelles technologies de l'information mooy leen permettre bi gën a yaatu xale yépp ànd ak Ousmane ci livre bi nga na ko muy les solutions de notre pays kan bokk waxtaan te bàyyi wujje te mooy par parloo Ousmane dafa jàng fi war a jànge dafa jànge Ndakaaro jàngaaniwul yàlla dogal mu def droit ak finance dem ba doon inspecteur des impôts kilifa la àdduna lépp xaalis la léegi impôt moo yor lépp tey boo ñëwoon États-Unis ARS mooy contrôler lépp lépp finance la ba ci bon trésor yi Ousmane Bah ci Sénégal kii moo mat président Ousmane bu nekkee président bourse Sénégal bi bourse bi day dox ak di bon de trésor Ousmane ci solution danañu taxawal xaalis boo xam ne nun noo koy moom France nekku ci loolu lépp borom koy def nit ñi wax amul ay politiciens viennent de la vieille école coloniale ay nostalgique lañ yoo xam ne kenn ku ci nekk boo sañoon tey doonaat président te mu benn solution luy nuuru solution amoo ko Ousmane moo am solution présenté ko Sénégalais yi pour ànd ak xale yi jubbanti réew mi am réew ay xale koy defar kan bàyyi Sonko mi jóg ànd ak xale yi jubbanti réew mi wolof dafa ne mag na dem noppalu tey jaamu yàlla tey ñaanal xale yi gone na jangi njagamar na sey ak magat noppalu mustafa Niass ban experience lam ban plus de près 100 ans de politique ban experience lu dul ke ak xale di sàcc alali ban solution mustafa Moustapha sam am Balde anam ban experience la ñu Balde am ban experience la Modou Diagne Fada am ban expérience la Farba Senghor am ban expérience la Idriss Seck am Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee gis ngeen ko waaw rappel def Idriss ci kaso bi waaw lu tax mu def ko xaalis boo xam ne presque soixante yoo xam ne ñun ñoo ko mu fu mu dugg dama ne bii jombul Ousmane Ousmane Sonko li mu décidé change système bi système bi moo suñ problème bu ko Ousmane soppee ba soppar ci ko jaaykatub jën jaaykatub jën banaa nekk président de la république mbir mi ak jubati moo ko lal ay jàngkat yoo xam ne xamuñ fu ñu jàngee te xamuñu dara ay nulaar yoo xam ne intellectuels yi soppi ko ay politiciens toroxal réew mi Abdou Diouf bi fi nekkee gis ngeen ko ban expérience Abdou Diouf am wax leen ma ko ban expérience la Macky Sall yor le président le plus nul en Afrique ban expérience la Macky Sall yor du ngeen ba li ngeen di wax ah seen parparlo gi bàyyi leen ko te yéen xale ngeen amul mat Ousmane seen morom Barthélemy Diaz ñoom ah ñoom Guy Marius dem nañ ci ñoo ngeen bok jubanti rew mi defal ko pale bi dañ ko tek ci loxol Ousmane Sonko mu jubanti ko bu demee kum neex man nga fa dugg ndax day fekk système bi soppi ko waaw yi ngeen di wax nak ndax sorte bi docteur sorte bi capitaine Dieye genn muy sorte bu pauvre tax na kenn ku ne bëgg indi ay rivalité Ousmane du sen morom Ousmane du sen morom Ousmane du morom Thomas Sankara ndax Ousmane du ko sut allu ep ko xam-xam ci xaliss ki nak amna na fit patriote la tem patriotisme moy defar am rew kan bokku jop jóg nak Ousmane Sonko ngeen jubbanti rew mi ndax man ngeen ko waaw amul ben president fi aw ban experience, am la wax len moko ah bi muy dem rew mi 23e pays le plus pauvre le plus endetté le plus corrompu du monde la fi wad du ak bor yo xamne xamuñu lu mu doon nu bor yi tollu te bor yi moy nañ ko maaki di ki lekk lépp maaki mum daa yor marto tojo tojo tooj bi réew mi moo ko waaw xalé yi japp liñ solution Ousmane Sonko yi moy seen morom japp liñ ci solution yi ngeen bokk mener une révolution guerre sa sap ak mondial ngeen foqa ci réew mi defar ko waaw buñ ko defé duñ ko reccu ngeen am ndam xalé yi dik ëlëk am ndam waaw kon man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp yàlla bu yàlla def jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla buur yàlla defal jàmm ñun ñëpp